li ñuy wax mooy nan la ñuy màggale ba mën a ba mën a tonoo barke bi ak njëriñ yi ci sëriñ bi santaane yëpp. alhamdulilah jërëjëf sëriñ bi eh, ñoo ngi rafetlu bu baax a baax seen taxawaay bi di ko jaarale ci sëñ Ibrahima Faye mi nga xam ne moom day kenn ci Baye mbay bi ab sëtam waaye di xaritam mu ànd ak yéen ñoo ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi nu nekk siyaare sunu kilifa gi ñu bokkal jataay bi ñaan sunu borom yàggal ko te wéral ko. mottuli ay mébétam saaxiran wa bàttinan màggal gaa ngi ñëw ñu ñaanal ko ñaanal ñëpp màggal gi fekk nañ ci jàmm buy dem bàyyi nu fi ba buy dikkaat fekkaat nu fi tam ànd ak jàmm ànd ak tal ak man wax nga dëgg sëriñ bi ci boppam euh, mooy lii Baye mbay wax rek loolu la bind wax ne jaxalta sayri fawqa jin wa jihaad fil ajri wal yumni wa fi kulli rasad def nga sama tukki bi mu kawe aj kawe ci xeet ci moom Seexul Xadim ci ëpp ko yool foofu ëpp ko barke ëpp ko lépp lu ak njub di nekk euh, ku ne xam na ne sëriñ bi li woote lenn la mooy ñu santale ko ci yàlla bay mbay mii day wax ne sëriñ bi de bu ñuy wax ne sàkku na ndimbal foofu lañ ko mën a waxe ñëw leen defal ma nangam nee na ci sant dong lañ ko mën a amee waaye doo amaat la neen loo xam ne da nga ci mas a fekk sëriñ bi wut ci ndimbal waaw gis nañu ne ni ne kon ak lu ko ñor la ndax li mu doon bind lépp ci digganteem ak boroomam ak digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp ci arab la koy def waaye ak gis nañu fu ko bind ci wolof gis nañu fu mu ci français am na béy doo xam ne da ko dafa ne làkk sama wal aradi làkk saraftu jërëjëf wa merci waaw nga xam ne foofu foofu ngay gise kon fu mu binde baatub cant ci beneen langue bu dul arab waaye sëriñ bi li muy bind lépp ci arab la koy def ndax ci yàlla ak yonte bi la ko jëmee kon ak cant lu lu lu kawe la ci moom ni nga waxee nag ci ni ñu ko war a dundale mu ñi ñëw màggal si mooy bi chikri wala alaali ji bàyyi mbay wax jàng alxuraan berndeel noonu la màggale ci wàllu jumtuwaay yi ñuy jëfe bu ko defee nag ñun ci sunuy ruu nag ñu teewluwaat yi ñu wara jangat ci tukki bi te yoyé doon yu bari bay mbay mi juñu na ci eh, muñ ab natu nangu ab dogal ndax limu suratul ahwad ñaat témer juroom fuk ak juroom ñatt ci ay natu, te ben natu du ci natu waliyu natu bu ci ne natu yonent la mu muñ ko bam rafet kon bis bobu ku koy dundal war nga jang muñ bu baax baax ñu xamé ci nit na ngi kenn mënta jariñu te sonu nabahtukum maan xalaakadin bada li xabla an araari dan mu abada yee naa leen ci coono boo xam ne sonn naa ko bi may laata am ngërëmul yàlla lu dëppoog man toll na juróom-ñaari at bay dugg juróom-ñett yoo xam ne du dégg ku ne dama ne nga ne ah ndax tumuranke gu metti wax na sëñ ma dem ne ko ñu may yóbbu ci réew moomee dama faa tumuranke ba mel ni néew boo xam ne ña koy yóbbu yóbbu nañ ko ci këram ba gas ba suul ko ba noppi wan ko gannaaw na muy tumuranke ni wéete noonu laa fa wéete woon noonu laa waaye nag ma wéttali ko yàlla wéttali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj na ku ciy waxateeg sa mbokk sax boo naree dogu ci mel mbir da nga naan ko loolu bu ma ko namee def na ma yàlla gëmoon jaala nga xam ne baatu yàlla gëmoon jooju foofu la ko njëkk a dégg waaye ak tumuranke moo ko jiitu nag kon loolu it warees na ko cee jànge jàng ci it fonku réew mi ak bëgg sa bopp wolof yi li ñuy faral di wax baatu gëm sa bopp damay dégg ci bàyyi mbay mi ci ay waxtaanam mu ne nit ki wërta gëm boppam ndax gëm yàlla lañ koy def waaye nit ki nag war naa xam boppam ndax bu xamut boppam du xam moroomam du xam boroomam kon sëriñ bi bi mu gëjee dégg ñuy wax wolof nga xam ne dama ne mu ne ah du ko dégg nettali na wax ne am na bis boo xam ne dama dégg ñuy wax wolof seen wax wolof yi setu waaye bi ma ko déggee saw waxat nii la wax sëñ Mat Lamin booy ree irwaa da nga ko ci fekk ka an nii fii balad yi daa neex ci man ba mel ne maa ngi ci réew ma nga xam ne kon sëñ Tuubaa ku bëggoon làng bi la ku bëggoon wolof la ku bëgg réew mi la li tuuli ahdi nee na loola sax xëcc na ko jañ ko ci moom sos ak xasida keroog xasida googu ci tarjumaan ji gis nga na mu defee tawasul ci boroomam allahuma inna ahdaai wa ahdaaka alxaw nii fil bahri kama alxaw xalilaka fi naari wa xaatabtaha bi yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim fa naaru jannatan laha mun mu ba muy deelik boroom dane ko sama noon sa noon yii ñooy samay noon noon yi yenn lan du ñaar ndax yow yaa tax ñu noonu ma boroomam moo tax noon yi noonu ko yonte bi saa sallam moo tax ñu noonu ko kon inna ahda yi wa ahda kon noon yi sa sama noon yii say noon lan dun samay noon dëgg-dëgg ndax Sëñ amul lu muy noonoon teeg nit waaw muy noonu rek eh, eh, yàlla ak yonte bi saa sallam tax mu noonu la waaw loolu sax boo xoolee ci ay mbindam danga gis ci xasida ak asiru gii ngeen doon laaj danga fekk mu mu mu mu mu mu mu jund ci loolu waaw xaruurul wara xarran nasara bi kaydihi wa zanna zununa wa zununu xaruur waaw kii war mbindéef yi moo war nasraan moom jàppewul nasraan yi noonu saytaane la joxañ moom la joxañ baaraam xaruurul wara kii war mbindéef yi xarran nasara kooko war nasraan bi bi kaydihi ci bam may fexeel wa zanna zununa muy njortu ay njortu ci nun wa zununu xaruuru te njort yi ay waru képp la kon moom defut noonu nasaraan yi saytaane mi nga xam ne sun boroom nee na ab noonu la te na ngeen ko jàppe noonu inna saytaana aduwun lakum fattaqisu xadduwa sëñtu sëñtuwaa saytaane rek la jàppe noonu moo tax loolu itam bi mu bi mu bi mu bi mu defee tarjumaan jooju alxaw nii fil baxri kama alxaw xalilaka finnaar yi ñi ñii sa noon yii tey samay noonu sànni nañ ma ci géej gi ni ñu sànne sa xarit bi Seydina Ibrahim ca sawara wa te da ngaa wax ak sawara wi ci ne ko yow sawara wi seddal seddu gu ànd ak jàmm ci Ibrahim sëriñ bi ne sawara wa mujj di àjjana ci Ibrahim keneen ku mën a doon sawara la ci yow waaye Ibrahim moom àjjana la sawara wa doon ci moom. mu ne ko noonu nga ma tàgg noonu nga tàggatale Ibrahima sawara wi nag man nga ma man nga mën a ne tàggatale géej gi ak waa géej gi kon tàggatal ma leen ca def xase dëkk ala nii us nii على xayri munhimi ولا astaki lil من min faqdi anhumi waaw waaw muy keroog ci bi mu déggee wolof yi rek ñuy wax wolof rek te mu gëj koo dégg mu ne man du ma tagg du ma yëkkati ku dul yàlla mi aji xéewale ji waaye du ma jàmbat mi def ngir ñàkk ay xéewal fa man sànni nii fii xurbati zaata zallulin ilaa xayri muxnin waashin fa waqat ami ku njortu ne Eh, tumuranke gi ak tukki gi dana tax may mokk di toroxlu ci kudut yàlla kooka ku gumba la ku dof la mm-hmm. ndax yi moom yàlla rek laa koy jàmbat lu asaki dox fii mm-hmm. wa faqri wa xurbati wa arju rujuhi xaajilan xayra mun in mu ne man ñett yi yàlla rek laa koy jàmbat sama doye di mm-hmm. yàlla rek kon màggal gi ku koy dund war ngaa gën a am tawakul ak gëm sa borom fexe ba mbir mu lum rëy rëy rëy nga jiital ci yàlla loolu koy dem war nga koy yóbbu yóbbaale la wasta kii dox fii mm-hmm. yàlla lay jàmbat samak doy di wa yi samak ñàkk it yàlla rek laa koy jàmbat wa xurbati samak tumuranke it wa ar arju rujuuxi xaaji la waaw maa ngi yaakaar nag samak dellu bu gaaw mm-hmm. te ànd ak ngeen xéewal gi gën a yaatu gën a mat bay ma mii danay wax ne raja ci mbindum sëñ bi mm-hmm. kenn du ko firee raja yi wóoru la yaakaar la ndax nee na gannaaw nee na sama yaakaar du tas mhm. yaakaar yi ñi ma topp du tas nee na kon raja foo ko fekk raja uhum mu xàqaxul kon yaakaar yi sëñ bi lu wér la kon eh, noo ngi leen di sant bu baax mhm. di ñaanali kilifa gi suñ borom yàggal ko te wéral ko yaakaar naa waxtaan wi daanaka bu ngeen ko déggee ci ni mu ko résime mhm. indi na mboolem lii taarixu yoonu murit ci ganik àdduna sëñ bi ci cosaanam état bi mu jàll ba bi muy agsi ci géej gi daanaka sëñ bi muy posé question fi muy posé fi la Baye Mbaye jëm si te mooy yoonu géej gi waaw boo xoolee itam indil na it euh, liggéey bi li tax wane na maqaama yi am door a jóg songi liggéey bi kon da nga ci dégg ne sëriñ bi ndeke bëggoon a doon ab sëriñ kese kese taxu koo dem ci géej gi kon waaw ndax koo xam ne bi ngay dem ci géej gi defar nga Cheikh Ibrahima Fall ba noppi ba noppi ci moom defar nga sëñ Massamba Diop ba noppi ci moom defar nga sëñ daaru asan ba noppi ci moom say rakk borom daarul moxti yi maam Cheikh Anta ñooñu ñëpp bàyyi nga leen fi say doom bàyyi nga fi Cheikh Mamadou Moussa Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Mamadou Lamine ba sëñ Bachir mi nga xam ci at moomu la gane àdduna xam nga kon kooku bëgg dib sëriñ rek taxu ko woon dem waaw waaye nee na iman bi nga xam ne mooy mahrifatu bi lay xaq ak kamaalul islam bi nga xam ne mooy al wusulu ilallahi tabaraka wa taala ak kamaalul ihsan bi nga xam ne mooy al yaqin bi maratibihi nee na ñett yi mënuma ko woon a am lu dul ci géej gi ci liggéey bi rek laa ko mën a amee moo tax sëriñ Bachirou nettali na ne ci minanu Baay Xadim ne am na bis boo xam ne daf daf ne alhamdulilahi man damaa sant naa yàlla bu baax nee na ñoom ñëpp ñu ne alhamdulilah mu ne masdadat bi maa wajabal imaanu bi walam asda taafuzan min al wara wala xubban fil xeyri wala xiyaaman bil xibaadati muskalaftu ilaa an aan man de sant naa yàlla ndax dama mësta dollee ko li ma war ci ak gëm sama borom doole ko ak wattu ci sàmm mosumaa mm-hmm. dooleeku ak bëgg lu baax mosumaa mm-hmm. ko taxaw ci jaamu yàlla diiru bañ ma toggee jëf ak léegi sëñ Basiru am jagle li ci sëñ Tuubaa mm-hmm. loolaa ko may mu ne ko masdadat fil xaybati izan waaw kon géej gi lum la dolli loo dolli ko ci géej gi <laughs> nee na mu muuñ fa tabassama nee na mu muuñ ne ko ah Basiru nag géej gi nag moom dooleekoo naa ci ndax ci laa amee maarifatu billaahi xaq yi ci laa amee wusulu ilallaahi tabaaraka wa taala ci la am al yaqin bi maratibihi ne ko Mamadou bashir géej amna ci may yo xamne may yo xamne kenn mënu ko tak la tatanaha kana ma kana noonu lako ko ci minat kon loolu liggey la won bo xamne waye ñu xamit sago gi mu amoon mom sëñ touba sago gi ndax ñu bato bi nga xamne fi ci ndagaru bato bi ci la yenn ci la fanane demu dikkut moo ko bindal boppam waxaalati safinati mumtalia xaylulatan maa almabiti bi fi a wa jaahu fi fulkihi almashuni muridahu ay fatal mamoon yahni ni bi murid yi ak Cheikh Ibrahima Fall kabiruhu xam nga Cheikh Ibra fekk na ko ci biir bato boobu mu yendu ci bato bi fanaan ci Cheikh Ibra fekk ko ci bato bi sëñ Maru Bëggey muritam bu mag boobu fekk na ko ci biir bato bi sëriñ Bachiru andi ñaar ñëpp ci minan sëñ ma Lamin Cheikh Ibrahima Fall gi ci Irwa lu mu wax sëñ Maru Ba mm. maa ngi leen di dénk ki nga xam ne su ma sampoonu bant sax dénk kooku bu ma ñëwee danaa fekkaat bant ba na mu meloon kon kooku jàqut ca fa mu jëm ndax mi ngi dénk mi ngi dénkaat ni ñi mu bàyyi gannaaw wax nañ ne bi ñuy tàggoog ñoom dana leen tàllal leen ma ñaanal leen waaw kon kon kon sëñ bi ku amoon sago la tiitutoon ca la muy jëm la mu wax Cheikh Ibrahima Fall itam mm-hmm. mi ngi koy ñeewant mm-hmm. sëñ moom fàtte na boppam di ñeewant Cheikh وجاءه في فلكه المشحون مريده أي فتى الممعون وواضح المريدة ثم رجح إلى الجسيرة بقلب وجهة sëñ bi Cheikh Ibra la yërëm waaye yërëmul boppam waaw mu ne maa ngi tàggoog sama morit bi mi ngi dem ak xol bu jàq bu jeex ndax jëmu ju ne dañoo wax ne ñaari xel lay am benn bi mën naa ne ci barab bi benn nekk ci beneen barab sëriñ bi nag daa seereel Cheikh Ibra Fall ne menn xel la moom te xel mi maa ci ne Cheikh Ibra bi nga xam ne menn xel la nag di tàggoog taalib sëriñam bii ci géej gi hmm. kooku xel ma faw mu jaxasoo hmm. faaw mu mu mu jàq hmm, waaye teewut da nga ci jànge sago nekkoon kon ab taalib mu murid daal boobu sëñ Tuubaa war naa am gëm yàlla gu dëgër mbir mu ñëwit war naa mën a affronter moom te ànd ak sagoom te dal yiñ ci mën a jàngat ci géej gi sëñ bi yu bari la waaye yooyu war nañ ko mën a jëlaale ci biir bu ñuy màggal di ko bàyyiwaale xel te yaatal dënn yi bu baax fas yéene kenn ku ci ne fas yéene xam ne lii ak jaamu yàlla la boo xam ne Eh, ki ki ki tax ki nu ko may mm. dafa bàyyi woon léppam mm. wéy ci ay coono lu dul rooguy génn mm. bind na ci xatuuf ne daj na ko te loolu lépp bëggoon teraanga ak xéewal ak xettali mbindeef yi rek a taxoon mm-hmm. kon nag loola ku ko jiital boo nekkee tubaa bu la nit joggi woon sax da da da ko mën a da nga ko mën a jéggal ñaareel ba itam mooy da eh, da nga mën a gën a yaatal itam mm-hmm. sa sa sa sa xol mm-hmm. ak sa jëmm kon loolu it ci yiñ mën a bàyyi xel ci bis bi la noo ngi rafetlu bu baax nag liggéey bii nga xam ni yéen a ngi koy def ndax ak yaatal la ndokkeel ñëpp ci weeru tedd wi it ñaan suñu borom suñu borom yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Mountakha defal ko ak wér ñaanal ko Baye mbay mii sëñ Mbaye ngi daan mu sëñ Mor mbay see ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko ba liggéey bii muy liggéey euh, lislaam ak taarixu yoonu murit ak jàngale ko ak yare ci ak di ci tarbiya suñu borom defal ko ci ngërëm li nga xam ne moom la ko ci ab sëriñam tegoon di sëñ Mor lam ci yéene lépp mën ko àggale ñaanal ko xalifaam bii fi nekk itam di sëñ Blaat sunu borom yàggal ko te wéral ko ñaanal ko njabootu sëñ moor gépp ñaanal ko itam mbooleem nag ñi nga xam ne lislaam tax na leen a jóg ñu sol seen daal ngir yëkkati lislaam muy kilifa yi diine lislaam yëpp noo ngi leen di ñaanal xéewal googu àgg ci ñoom jërë ngeen jëf